vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda.net. juróom ñeenti waxtu ci suba gi jot na ci service régional du commerce bu kawlak bi mbokk yi salaamaaleykum dalee nag jàmm ci xibaar yi li ci gën a fës nag bokk na ca gannaaw ba nga xamee ne ñoo ngi mal gàmmu gi ci Kaolack rawatina itam ci dëkk bu sell bii di Medina bàyyi tax na nag moom a jëwrin gi nu denk wàllu jënd mi ak njaay mi dikkoon itam rek fii ci diwaan bi doon waxtaan ak acteurs yi nga xamee ne ñoo seq wàllu wi ci aju nag ci wàllu njënd meek njaay mi ak saytu. yi ci war ak moom mi nga xamee ne mooy jëwrin boobee nag di Abdou Karim Fofa Fofana daañu ko dégg ak Cheikh Tidiane Diagne ci teewaayu mbooloo mu takko takku moom jëwrin bi nga xame ne moom la ñu dénk wàllu ndox ak wàllu assainissement nga di Serigne Mbaye ma moom nag waa parti socialiste bu département bu Nioro rawatina itam nag waa Kër Ma Jabel ya ñoom nag ñoo ko doon sargal waaye itam doon sargalaale njiitu réew mi Macky Sall ci kóolu ceeg gi nga xamee ne am na ko ci doomi yi lu ni mel itam ponk bu yaatu yaatu lay doon eh, ci ndimbalal Cheikh Babacar Dieng eh, ñiling gu mag nag ab dëkk la ma nga ca commune bu eh, Kër Socé foofee nag lu ëpp rek junni ak juróomi téeméer ci ay doomi aadama ñoo fay yeewoo waaye nag ñoom ba jamono ji rek askan wa dundaguñu nag ci allahuma salli ndaxte itam ay jafe-jafe yu bare bari la ñuy jànkonteel bokk na ca nag feebar faju ak it nag ñàkk yoon yu baax ci jamono joo xamee ne itam ne askanu walla dex ñoom ñu itam daañu ca dégg noix bi yaay bu ni lépp yi daañu teg xabaaru bi ci réew tàggat ah, yaram ak li ci yéeni kaay yi mu yem mbokk li gën ci ponk xibaar yi nees gis indi ci faram-fàcce. Le journal ci eh, kaddu gi eh, fego ci ak Serigne eh, Moussa Kane ci wàllu xarale gi keddu gi di àddoo fii ci studio Alioune Momar Lo xibaar yi nag dañu koy dooree ak gile mbir moom meeru dëkk bii di Serigne Mboup nag gannaaw jëye ji nga xamee ni amoon na fi rek ci ay bés yi ñu aw weesu muy taax ba nga xamee ni moom mabon ca Ndorong moom nag gannaaw gi loolu rek demoon na fa daal di yóbbu njaalam mastaw njaboot ga waaye itam doon xamle ne ñi nga xamee ne ñoo ca blessé lépp li ci war ci wàllu prise en charge daañu ko def. sëriñ boobu la ñu yaa ko Cheikh Ababacar Dieng. di ko jaale sama bopp ndax yu baree bari ndax njaboot gi benn nañu sëriñ maa ngi moom bokkoon di jàng arab ma daan ñëw fii boobu ñun fii yëpp ci ngaan la woon daan ñëw ci kër ga di ko ko jaale ndax kilifa kër gi muy sëriñ bi sama doomu ndey la sëriñ Moustapha Ndiagne mooy kilifa ak sëriñ Axma xam nga ni ñu demee ci mbokku deret kon daanaka ak yàlla def tamit def teraanga ma nekk meeru dëkk bi njaboot gi yëpp jàpp ci li ma tax ma siggi fii muy wàllu chambre de commerce ak wàllu maire bi ma fi daan ñëw tamit bi may wut mairie bi di gërëm bu baax sëñ Mor ndax keroog li tax ñu naan conseiller moom mati ko sëkk ndax bi ma koy woo téléphone àndut ak sagoom waaye dal na dañoo toog di def réunion ci ministre l'intérieur sama secrétaire général wax ma ne ma mbay nga moo ko woo du France wax ko mbir mi man maa jël ci saase note wax ko ministre l'intérieur ministre l'intérieur wax ko kii sapeur pompier biñ ciyee tuuti sax dama jóg jël kàddu ne ko damay jóg lii mat am damay toppatoo ji mu ma ñu gi ko yaramam sutante te dafa am loo xam ko mënoon ndax na lu ñu waroon def ci moom loo xam ne nii man nag maa waroon a signé démb lañ ko a mat rek mat na ndax suñ naan maire su fekkee boo boo xam ne boo fi nekkoon sax du ko mën a defe noonu commencé ko ci docteur Mbaye Guèye mi nga xam ne nii moom nday lobee taxawaay bu mat boo xam ne nii taxaw nañ ak Alioune Diouf mi nga xam ne nii moom bu dul woon maire tamit daf ci taxaw taxawaayam ndax dafa bokk ñun lépp yal na leen yàlla fay ak Assane Fall mais nga xam ne tamit ñoo bokkoon yarondoo kon nag dañuy xam ne ne loolu la yàlla dogal yàlla dana xëy àdduna bi yëpp mu tukkal bâtiment yëpp daanu yàlla dana ko xëy def ñi nga xam ni tamit yàlla dafa def ñu blessé ci docteur maa wax li war ci ñoom ba yàlla delloo suul leen seen lépp à 100 pour cent nañ ko jël ki génn àdduna moom ñaanal ko rek nga ci mat ndax xëy na la muy dund moo gën li ñu nekk waaw te niñ ma waxee ak ni ma ko xamee woon ma nga bokk ci ñooñu ñii tamit yàlla teg ay nattu ñu taxawu leen bu baax a baax loolu rek ci am a 90 point 1. Euh, daal di wéy ci euh, xibaar yi lii itam bokk rek ci lemaleen euh, junjoon askanu ñiling gu mag ñoom nag jamono ji ay jafe-jafe dëgg rek la ñuy jànkuwanteel amuñu poste de santé case la ñu am te it nag yenn saa bu ñu bëggee amal yenn faju yi faw rek ñu daal di génn dëkk ba te sax nag yoon wu ñu jaar itam ak ak jafe-jafe la tumaranke googee ñu tumaranke nag tax na ñu ngay yuuxu wàllu noa bi yaay commune bu Kër Socé département bu kaw Kaolack dafa mel tey bokkul ci Sénégal lu ko waral mooy melokaan seen tali jim ndaw caam mooy doon wax ci tur askan yi. di yoon Ndioufène kenn ku ci nekk xam na ni mel bu nawet jotee dend sonn lool templi de sa amuñu poste de santé kon faw sunuy soxna suñuy yaay ak suñuy rak yittewoo rejoindre yeneen poste de santé kon ñu ngi sàkku itam ci autorité locale yi ak administrative yi ñu dimbaliñ ci yoon boobu noonu ba mucc waaye itam ku yoonu Kër Madiabel bi ñii leen Kër Madiabel doy na waar itam ndax dañuy obligé buñ fa naree dam di jaar ba yoonu Ndioufène bi te yoon boobu noonu lu ko relier ak tali bi bëriwul bi sàkku si bonne volonté yi nuñ defaree yoon boobu noonu ba mu praticable ku xam dëkk bi itam xam ne am na ñaari tool yoo xam ne toolu jigéen ñi la te lu ëpp wala boog noor ak nawet dañ fay liggéey waaye bu buñ fa liggéeyee ba pare seeni marchandise dañuy obligé yóbbu ko Kër Madiabel te yoon bi des na baax ñi leen gu mag askanam tolloo 1500 ñuy jànkonte am barab fajukaay suñ gu mag ak lim ëmboo ci ay doomu aadama ak position bi mu nekk itam par rapport commune bi yittewoo na poste de santé daf neen ay démarche ndax population ñilinoise bi ñu ngi góorgóorlu par rapport ak loolu ñu ngi sax ci autorité locale yi ak administrative ñu jàppale ñu ci wàllu finance ba construction boobu a yegg waaye itam démarche yi nga xamante ni ce sont des si tàllal loxo tamit pour case de santé boobu noonu ñu soppi ko poste de santé askan nekk fi ci ñilin gu mag ñuy ñaax nguur Sénégal mu andil saafara ki seen problème problème bu mel nii. Noabiaye ñiling gu mag ma nga ca commune bu Kër Socé waaye nag askan walla dex ñoom ña nga ca commune bu a Ndiafate ñoom nag jamono ji rek daanaka mënees nay wax ne ah, dund ak weerayaan dëgg lañu ñuy dund goo xamee ne sii ne bu ñu ca gaawutee nag dimbali leen mënees na leen ay tàbbal cib guuta goo xamee ne mi ngi aju rek ci wàllu ñàkk gu méttee métti mbaa sax wàllu ndóol lu ni mel nag la ko waral kon mooy na dem ak dikk gu tàgga témbe boole kook ne itam ca dëkk ba foofee ah, dara doxu Diouf Samba Ba mooy coordonnateur bu syndicat populaire bu wala dex mi ngi ci micro noir bi ay jamono yii ñu yëkkati suñu kàddu pour nga am accès dugg ci zone bi nga xamante ne fukki dëkk ak juróom-ñaar ñoo fi nekk métti na lool ndax dugg ci gox bi rek boo xoolee mu ngi mel ni jéggim siraat ndax ndox mu bëri ak yoon bu bon te bokkoon na suñ plateforme de revendicative yi avant naweti daaw bi bu ren ji travaux yi demuñ dikkul rawatina tamit ci wàllu électrification ci obscurité ci lëndëm bu xamante ne ak insécurité boole koog vol de bétail bi nga xamante ne mu ngi ñu sonal boobu ba léegi amuñ ci saafara wax dëgg fa yàlla bëgg nañ ci ku ñu ci dimbale ci wàllu santé yi aussi dëgg la indi nañ ambulance waaye équipement bi ak maternité bi nga xamante ne moom lañ tegoon sur table ba léegi gisaguñ ko te ba léegi ñu ngi koy demande éducation aussi bëgg nañ ci amélioration ndax lycée de proximité bi nga xamante ne ñu ngi ko doon demandé yu xamante ne tey jii nii bëgg nañ ci à urgence ñu dimbale ñu ci li ko dalee ci madame le maire Aïssatou Ndiaye taal boo dem ci président di conseil départemental monsieur Benzeloum ak mboolem autorité yi boo yegg ci président de la république askan wala dex ci commune Ndiaffate ñoom ñooy sakku ndimbal ndax kenn mënatul dépasser dugg ci zone bi te ñu ngi fi béy ay xaal ak yeneen produits yoo xamante ne dañ ko war a écouler mu gën te yoon bi bu baaxul mooy suñu nawet dugg ci mbir mu ne dinañu sonal lool. jaajëf euh, Noa Biaye ma càttaan yooyu lee kaddu ñu daal di wax kon jëmale ko rek ci weneen euh, mbir saa bu ñu dëgmalee nag lii di ay événement euh, religieux ministre du commerce bi nag dafay faral rek di amal ay tukki nemmeeku tànk yooyee sax nag moo ko fi indi woon moom Abdou Karim Fofana fii ci diwaanu ak Kaolack bi lu ni mel nag la doon jubluwaay bi mooy xool rek marché yi ndax rabitaay yi nañu leen ci ay produits ak denrées yu doy sëkk waaye itam say saytu gi war ci wàllu njëg yi jot na amal ab ndaje ci teewaayu Cheikh Tidiane Diagne. yokkuteeg njëg yi jéggi dayoo ci marché bi tax na nag jëwriñ ji ngi dénk wàllug njënd mekk njaay mi ñëwoon ci Kaolack moom Abdou Karim Fofana ngir daal di waxtaan ak commerçant yi ñu yor butik way jëfandikoo yi femme transformatrice yi defarkatu mburu yi ak ñeneen ak ñeneen ndege mee ngi doon am barke démb ca chambre de commerce bu diwaanu Kaolack moom jëwriñ ji nag gannaaw waxtaanu ñaari waxtu ak ñi nga xamante ne ñoom la soxal bi mu génnee kàddu yi la yëkk yëkkati Abdou Karim Fofana jëwriñ ju bees ji ñu dénk wàllug njënd meeg njaay mi ci réewum Sénégal. li ñu fi andi woon nag mooy ndigalu président de la république Macky Sall ñu ne woon bu xew-xew bu yi jege nañuy dem ci dëkk yi di xool ndax stock ñam yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ndax am na ba mu doy ci dëkk yi ndax tamit njëg yi ñu ngi koy respecté seetlu nañ ne ci stock yi am na jafe-jafe tuuti ndaxte ceeb suukar ak dëwlin peut-être na mu waroon ñëwee ñëwagu ko donc service yi danañ liggéey woo importateurs yi ak ñi nga xam ne ñoo koy jógee Dakar fexe mu gën a yegsi te gaaw a yegsi ndax nit ñi jot la nangu ci biir salle bi rawatina ñuy jëfandikoo wàll ka ciment ñoom nag dañoo jàpp ne njëkk yi nga xamante ne dañu ko homologué mu toll ki soixante quinze mille tonnes ciment bi war nañu ko yokk Ousmane Diong mi leen jiite lii la wax ci ndege mi. CRD bi prix yi ñu def marge bénéficiaire bi loolu laa wax léegi ministre bi dafa xaw a ndaw parce que boo séddalee trois mille entre le distributeur ak le détaillant dafa ndaw te aussi teniruñ compte ci dëkk bu nekk ak transport mais comme wax nañ ko bi ñoom nee dinañ ci ci wàll ko farine bi ñu yor boulanger yi di ko wax commerçant yi ne ñoom tamit dañoo am ay jafe-jafe lii lépp nag bi ko consommateurs yi dajalee mënee suñu koy wanaasu Abdou Badio d'accord utoon nag ñoom benn yoon ci ndege mile moo jiite Ascosen. bu ñu nee fixé prix yi ñaar dërëm la na ko ñëpp respecté loolu mooy suñu problème majeur fii Kaolack mais na njëg yi nañ koy def ci affichage ñëpp di ko gisandoo. femme transformatrice yi jàpp ne nag ngir am pexe ci jafe-jafe yi faaw ñu jëfandikoo li ñuy bay fii ci réewum Mbengue moo jiite COPEDELSI bi fi Macky Sall seet si woon ci bi nag waa service du commerce nee nañu soixante tonnes deux cent mu ngi ci marché bi sac bi ñu ngi koy jaayee ceeb bi soixante moo nekk ci marché bi prix ngi ci jàpp diwlin bi quatre moo nekk ci marché bi bidon fay litre bi mu ngi ci vingt cinq mille sept francs ministre bi nag gannaaw bu génnee ci ndege mile dinañu wootewaat beneen ndege ca gouvernance loolee gouverneur moo koy jiite ngir ñu mën a wax njëg lu nekk li muy jar ak nañu koy jaayee. ci wàllu uh, njëkk uh, yooyee uh, Cheikh Tidiane Diagne grossiste ya nga xamee ne itam ne ñoom la ñu cay joxoñ baaraam ma ñoom nag ña ngay andi ay leeral di sàkku nag ci kilifa yi ñuy faral di addu rek ci produit yi nga xamee ne dañu leen a am ci diggante ñiy jaay ak ñiy euh, jënd lu mooy loolu itam ña ngay rafetlu taxawaayu ministre bi boole koog nag di euh, dalal rek xelu askan wi euh, ci ne gàmmu gi daal ña nga yaakaar ne lépp dina yemb Matar Diaw ak Cheikh Tidiane Diagne. waaw ndaje ba ci foog na ne dana am avancement. yaakaar naa ko parce que vraiment ministre bi am na détermination te am na ci volonté mais li ko wax rek mooy ne moo ñun au niveau de Gros si amuñu ci problème l'essentiel service de commerce au moins bon accès dana yomb encore tamit arrivé des produits dana yomb kon ça bonaan problème am problème problème ay problème comme ça mbir a wàcc problème bi buñ joxoñ ñu tuuma comme wax naa ko attention wax naa ko monsieur le ministre bi na ko problème bi mooy nga leeral leer la baax na parce que bun na ceeb rek gars foog na gaan am na ko wax bi benn ceeb ceeb du luxe ceeb xaw ma riz basmatique ay riz Tyson yooyu boo dëggee ñoo ne ceeb boobu jar 500 nga dem ci marché bi ñëw ne boo ceeb wàññeekul am nga problème lu na wax leen wax boobu la état bi diwlin bi aussi l'huile végétale la subventionné yooyu bu leeree ci bopp nit ñi ne dana xam na fi nii mais da ngay ñoo personne ak une consommation te boo seetloo mu passe quatre comme ni ko ministre waxee wala cinq produits très bien loolu lu ko waral mooy ne une semaine bien avant même pas une semaine dafa am dafa am benn hausse boo xam dafa am ci ceeb bi te commerçant aussi bagage bu amee bu ñu déggoon aussi ministre dafa war a ñëw ak ah, le président doon wax gars yi xam aussi daal di tey parce que aussi mën ngaa dem jënd ñu indi benn arrêté boo xam ne moom doo ci dara moo tax nga ne tey léegi dootu moo jënd mais une fois que léegi léegi ministre bi génn ko ak service de commerce ci waxtaan les produits en tout cas avant gàmmu gi incha allah lépp dana nekkaat so dana yemb incha allah amagum na sax mais li nit ñi bëri moo jafe moom nag Matar Diaw moom nag doon addu mooy président grossiste yi ci euh, Kaolack jaaree ko ca seen ak waxtaan woowee nag moom meeru dëkk bii di euh, Serigne Mboup euh, fala jibalee nag xalaat bu am am solo doon wax que ne itam bu ñu bëggee dakkal dund gu cher gi la faw itam nak ñuy béy rek di dundee lu mooy loolu itam ma nga doon rafetlu nag taxawaayu a jëwrin bi ànd ak nag di dikkaate solo sa ndaje ma Serigne Mboup mi ngi ci micro Cheikh Tidiane Diagne. waaw xam nga jotaay bi dafa am solo. yéen ñëpp gis ngeen ne président la république dafa woote woon Dakar. xool nan lañ mën a yombale njëg yi mu dëgal ministre bi mu wàcc ci région yi njëkke ci région yi nga xam ne nii mooy kilifa diine yi mi ngi woon Tiwaawoon tey mi ngi Kaolack xam naa suba mi ngi feneen waxtaan wi nag dafa am solo ndax ñëpp lañ dajalee consommateurs yi ñi ngi fi commerçant détaillant mi ngi fi commerçant demi grossiste yi grossiste yi ñi ngi fi je pense que ministre bi dégg na ñu ko wax waaye man message bi ma ciy wax rek wax ko Sénégal yëpp mooy li président waxoon rek te mooy li nga xam ne nii mooy liy finalité bi nañ fexe ba lekk li ñuy bay bay li ñuy lekk ñaareel ba ñu xam ne tamit xool suñ façon d'alimentation alimentation toujours dañuy ceew ceeb ak diwlin waaye man li ma ci wax moom mooy moo gën a tuuti ci dépense bu quotidienne am na yeneen yu ñu war a gën a mën a économiser ci téléphone wala ñu wàññi diwlin gu niin gi ah yaakaar naa loolu man laa ci wax en tant que sëriñ boobu bien que nag terewuma ko ko mënuma ci dara waaye nag li ci ëpp solo rek mooy Sénégal ñun ñëpp ko bokk dund bi cher na kon nag opérateur économique yi nañ fexe waxtaan ak ci seen biir entre le grossiste le ba nga xam ne nii coow bi dana wàññi ko bu baax a baax waa chambre de commerce normalement problème bii du problème préoccupation état bi loolu chambre de pare dem ci état bi rek wax ko ne defal lii wala def lii pour prix yi nekk fële ndax looloo tax Sénégal li njëkk a décentralisé mooy chambre de région bu ne am ko te ci décret bi ku dénk dañ ko wax ne mu xool condition de commercialisation bi yaakaar naa am nañ yaakaar ci ministre bi pour ci réforme yi ñuy def bu ko état bi defee dana yombalal d' agence yi locomotive la ci chambre de commerce yi parce que Kaolack avant indépendance sax locomotive la ci chambre de commerce yi njëkk a la te am na infrastructure yi nga xam ne ni may na ko mu mën a taxaw ci loolu. Serigne Mboup ay la yéwén nag lii dëgg-dëgg rek jafe-jafe bi mooy ne itam ne commerçant yi grossistes yi détaillants yi ba ci importateurs yi yenn saa itam nag dañuy bëgg a xaabaabal maanaam daal dañuy bëgg a foqale ci wàllu njëg yi te it jëwrin ji moo ko xamle gannaaw itam njàmbat ak tawat ya nga xamee ni jot na ko ma nga doon dikkaat tam ci taxawaayu état bi a jëm ci dund gu cher gi Abdou Karim Fofana ak Cheikh Tidiane Diagne. leneen li nag mooy njëg yi njëg yi xam ngeen ne bi at mi tàmbalee ba léegi état du Sénégal li ñuy wax pouvoir d'achat maanaam fexe na ba plus de six cent vingt sept milliards maanaam juróom benn téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay milliards def na ko ngir njëg yi di bañ a yokk tey dégg ngeen ko keroog nee nañ mburu ku ko juróom benn fukk ak juróom la waroon jar trois cent vingt cinq mais état bi moo def loxoom ci farine bi ba nga xamante ne njëg bi agul foofu ceeb noonu dëwlin noonu euh, li nga xam ne nag moo war mooy commercant yi ñu xam ne boutique boo ko yoree maanaam juróomi produit la ci état bi di contrôler wala di di di encadrer prix bi homologué ko ne lii nga ko war a jaayee te boo déggee ci boutique am na juróom fukk ba yenn saa téeméeri produit yoo xam ne bu ci nekk bokkul ak sa morom ñu ne nag juróomi produit yi wax dëgg yàlla marge yañ ca am bu jamono neexee war nañ ko mën a muñ waxuñu kenn na waaye war nañ wàññi marge yi ba nga xam ne képp koo xamante ne yaa ngi jënd doo ko yëg léegi nag quatre-vingt-quinze yeneen yi ci topp wax dëgg yàlla état dafa wax rek ñu def lu yenu maanaa waaye encadré wul prix yi donc lii ceeb di dëwlin di suukar ñu ngi koy wax ku ci ne na nga bàyyi xel marge ba nga daan am mënta ne jamono ji ñu bàyyi ko xel encadré ko ndaxte waxtaan bi bu weesoo nag bu kenn respecté wul règle yi contrôle économique dina ñëw te bu boobaa ay daan moo ci topp donc li gën ci ñun mooy ku ci fexe fu mbir mi jaar rek ku nekk nga mos bi mos grossiste xamante ne mooy détaillant bi mos ku nekk bëggee def li ñuy wax xamp defe naa ne mbir mi du egg bu baax ci consomateur ndaxte nag président li mu wax moo ñu doon ministre consommateur yi ministre commerçant yi ak ministre producteurs yi waaye nag consommateurs yi ñoo ëpp te ñoom ñooy population Sénégal bëri ci ñoo xamante ne mën na am seen loxo jotul seen ginnaaw te ñooñu la ñu war a gën a protéger moo tax bu ñu amee sasu ñëw lijjanti problème bi dañuy waxtaan ak commerçant yi waxtaan ak yi waxtaan ak grossistes ko defee ñu respecté marge yi bi def bu ko defee ku nekk mën a jëfandiku ni mu waree ak ci ni ko état defee te rawatina jamono joo xam ne état dafa def alal ju bëri mu nekkoon ay kaddu ya jëwrin gi nu dénk wàllu a jënd mi ak njaay mi juróom-ñeenti waxtu ci suba gi jot na ba tegal fukki simili ak juróom-ñaar ca département bu Nioro. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda département boobee nag la ñuy utali foofe nag askan wa fa rawatina itam ña nga xamee ne rek ñoo di waa Kër ma Madiabel yi ak njabootu parti socialiste ga nekkee foofu yëpp ñoom nag ñoo doon salgal rek njiitu réew mi Macky Sall njukkal ko jarale ko itam ca ka nga xamee ne moo di seen ak buntu muy ministre bi ñu dénk wàllu ndox ak wàllu assainissement di Serigne Mbaye Thiam te nga xamee ne itam ne moom njiitu réew mi tab na ko nag ci ay ndox booy tànk yu baree bari ba tax na itam ñu ne ñoom njiitu réew mi Macky Sall dese la wattu leen dara lu ni mel nag ko xamle mooy Abdoulaye Diatta di maire dëkk ba ay kàddoom Cheikh Ababacar Dieng moo ko taataan. le président de la république Macky Sall voulons faire sa confiance. loolu ñun sàkk la ci ñun. dañ ko war a sargal dañ ko war a jaajëfal. mu jël ko ci yow tey li gën a jafe biir Sénégal te man maa ñoom lañ ko dégg loolu lu rëy la yoo koy sago mais leneen li ñuy sago ministre président la république dafa jël suñu papa Moustapha Niass bi mu ko déggee assemblée nationale fukki at mu génn mu nommé ko au conseil spécial man dama jàpp ne loolu li muy tekki le pouvoir politique du débat monsieur le ministre ñun dafay gëm yàlla yàlla nee nañu buñ tracé nga effacé bu tracé waat nga effacé daf lay le président Macky Sall bi élection législative ñoo yaalu na quinze communes la responsabilité mu tànn ci ñeent ñu nangul ko ko soobu àll mooy desul énergie bi ñu desul xalaat yi desul ba ñu fële muy Adja Ba ak Alima nationale ñu nangu ko ñu mën a def ci loolu ñu dem élection au conseil des collectivités territoriales président de la république dogal jël suñu xarit Alassane Mbaye jël Adja Néné Marie Mané mu tàbb leen monsieur ministre ñu nangu leen ko wàcc ci PV bi ponti ñu mujj ñu porte à porte ñu fay leen ñu ministre président Macky Sall ci dogalam moom moom mu dogal jël décret mu nommé Abdoulaye eh, Diatta ka ñu doon eh, sargal nag ci teewaayu mbooloo mu eh, jéggi dayo ma moom nag fa la waxee rek fi nga xamee ne fa la jaar ak njiitu réew mi Macky Sall ci ay relation ci ay combat yoo xamee ne seq nañu ko waaye itam ci ay xeetu tabeef yuy firndeel kóolute gannaaw gi loolu itam moom Serigne Mbaye Thiam la mu xamle mooy ne lépp nag dafay ëlbatiku rek delloo ko waa Kër Ma Jabel sant leen gërëm leen ci seen ak yëg-yëg ay kàddoom ak Cheikh Babacar Cissé nekk ministre de l'enseignement supérieur porte-parole du gouvernement nekk éducation nationale jàng baat bi ñu ko wàcc ci alxuraan nekk jàng iqra jàngat yàlla def ñu def la foofu nga sant ko ñu ne loolu c'est la vie yàlla def nga yore ndox nga santaat ko mais nag sooy sant yàlla yàlla lu mu lay jox daf koy awale ci doomu aadama doomu aadama bi mu ko awale mooy d'abord ki nga xam ne mooy Ousmane Tanor Dieng bi mu nekkee avant deux Abdou Diouf tey xaw ma tàngoor benn yoon laa ma soxla toog ak moom te boobu damaa nekkoon trésorier fédération sénégalaise de football moo tax ma toog ak moom bi may toogaat ak moom mooy après deux mille bi Abdou Diouf perte nguur ñu commencé di liggéey di liggéey confiance am suñu diggante mag ak rakk aw suñu diggante ñu óolu ma lépp loo xam ne lii enjeu ci opposition bi de taxaw nañ ci bés bii nag président Macky Sall pour ñun nag lii ngeen def jàppee wuñ ko félicitation jàppee wuñ ko delloo njukkal jàppee wuñ ko sargal xam nga jàppee da ngeen ñoo sas da ngeen ñoo ñaax pour ñu bañ leen rusloo bi liggéey bi ñu fay liggéey delloo njukkal sargal nit ki su liggéeyee ba pare lañ ko war a féliciter ku may féliciter en général suñu formé gouvernement dama naan déedéet dag maa war a encourager prier pour nous suñu paree liggéey bi nag bay génn ngeen féliciter ñu ndax def nañu wala ñàkkul noo def waaye jàpp leen ne man lii ngeen def tey jii góor bu mu doyul leneen du la doy dinaa def lépp pour bañ leen a rusloo ci sama taxawaay ci gouvernement bi dinaa def lépp pour bañ leen a rusloo sama liggéey ci gouvernement bi dinaa def lépp pour wayu doomu Ndefleng Ndefleng wayu doomu département Nioro wayu doomu région de wayu doomu Sénégal bii def lii beneen waaye moom euh, moomee eh, bëccëg nag Serigne Mbaye Thiam porox ndoolu na ca rek itam daal di euh, waxtaanee euh, tolluwaayu parti socialiste ci Sénégal ak ca département bu Nioro boobee nga xamee ne itam nee na nag responsable politique ya ña nga koy sonnee kenn ku nekk itam di ca def taxawaay bu mucc ayib boo xamee ne nee nag bu gënee fis bu gënee fës mbaa mu gën a biir dina bokk nag ci li dooleel parti bi ak coalition bii di coalition benn Bokk Yaakaar ay kàddoom eh, bi tey la ñuy teewlu. lii nga xam ne moom moo fi am tey jii mooy parti socialiste moo oote waaye au delà parti socialiste bennoo yëpp a fi parti socialiste suñu njiit Aminata Mbengue Ndiaye moo ko jiite Aïda Sow Diawara ma foor na toog yónnee ma message la dana ñëw tey mu joxe ngànt ñii fi toog ku ci nekk rek mag nga toog membre secteur exécutif yëpp bureau politique yëpp fees nañu sec place su Aminata Mbengue Ndiaye ñu koy gërëm moom tamit di ko sant ci óolu te bi óolu wax ne président suñu ministre yi nañu continuer rax ci doon yi génne benn bataaxal firndeel ko signal na boppam projet passé daf koo def ci turam def ko ci turu militant parti socialiste Sénégal yëpp parti socialiste c' est ça la voie Benno Bokk ça la voie soo duggee dans le Sénégal réel da nga sociologiquement Benno Bokk majoritaire politiquement Benno il s'agit pour nous seulement responsables de traduire cette majorité sociologique et politique en majorité électorale forte jeunes responsable loolu a fexe ba élection jub ñu koy def jeunes yi de parti socialiste c'est ça la voie tey jii Alpha Djibril Kandji Aïssatou Diagne Amadou Sow ak responsable yi fi teew yëpp lii lu mel nii Camara def ko fenn a feneen ak feneen ñun ñuy ànd ak moom di ko gis loolu dana dundal parti dana renforcer parti te su renforcer parti socialiste dana renforcer coalition su man rek ñëwoon ci daje bi xëy na dana neex de waaye camarades yi nekk Kër Madiabel yi yi jógee Medina suñu gisee ne Serigne Mbaye Thiam moom rek weetul ñoom it Alpha Aïssatou Diagne di ko ñeneen ñu ngi ci wetam ñu ngi liggéey dana leen may fit dana leen may gëm-gëm seen parti donc camarade nañu xam ne c'est lancé parti socialiste nañu jóg ànd nekk benn yéene te lu baax loolu moom moo ñu loolu laay oo aw ma ak kenn xaar ma yàlla. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda 90 ña nga ca taaxum kew ma ñu euh, duppe Cheikh Imam si Cissé ñu wéy ci euh, xibaar yi addu jëmale ko ci wàllu euh, diine taalibe yi nga xamee ne ñu aju nag ca kër Cheikh Mouhidine alfa Samba Diallo ñoom nag jamono ji ña ngay waajal rek bu baax a baax seen ko gàmm gi nga xamee ne ña nga koy amal le 14 octobre maanaam daal bu ñu nee suba la gàmmuwaat bés boobee nga xamee ne itam ne ab sunna la boo xamee ne seen sëriñ ba moo leen ko fi bàyyil ñu koy amalee foofee ca Medinatul Jeylaani nañu koy fugloog fa ñu toll ci wàllu aw wattaay bi lii lépp nag moom Ousseynou Badiane di kenn ca jëwrin ya dikkaat na ceek Cheikh Babacar Dieng dajawaat nañ fi tey ci pàkk bu sell pàkk bu yiw pàkkub texe di Medinatu Cheikh Abdoul Xaadir Jeylaani xadi sala sirwo ngir dundalaat na si nga xam ne si moom lañu ñu sëriñ bi bàyyi woon muy gàmmo Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaam feeñuk jamonoom moo tax ñu dajewaat fi bésub tey bi ngir waajal bésam bu màgg boobu di ci jàppit di ci fas di labal mboolem teraanga mboolem yiw yal na walangaan ci kaw Seydina sallallahu alayhi wasallam waaye lépp lu ci yiw tey barke yal na dotteeku ci kaw Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo moom ak njabootam ak i taalibeem ak mboolem julit bés bii daal bés la boo xam ne bii nii képp koo xam ne kii rek mbindeef nga ak sant yàlla la jëme ci yow képp koo xam ne kii rek doomu aadama nga na julit ak sant yàlla la ci yow ndax lépp lu ñu bind rek lépp lu fi am rek yàlla nga ko jaaral ci Seydina sallallahu alayhi wasallam doomu aadama lépp xam na ko waaye doomu aadama xamul lépp li tax lépp xam doomu aadama yërmandam bindeef mooy xalqillaahi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ndax lu ñu bind lu ñu amal Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam moo tax suñu borom amal ko kon dajewaat nañ fii ci bés bu màgg bés bu tedd bésub teraanga bésub defaru ngir màggal ganeb Seydina Mohamed sallallahu alayhi nga xam ne mu ngi tombe ajjuma bii ñëw bu dellu see tombe 14 octobre 2022 incha allah moo tax taalibe yi doomu aadama daje fi ngir setal béréb bi ngir ñoŋal béréb lii Ousseynou euh, Badiane gannaaw itam euh, nettoyage ak jag-jagalaat boobee nag ñu doon amalaat ca barab ba ñoom itam nag jigéen ña ñu ne rek jamono ji euh, laxasaayu nañu ba dëgër pastefu ngir nag berndeel gan ñi nga xamee ne war nañuy ñëw foofee ba tax na itam ñu ne jël nañu lépp luy matukaay ci wàllu waañ wi Bintu Diop di kenn ca waa waañ boobee mi ngi ci micro Cheikh Ababacar Dieng. suñ taxawaay ci gàmmu gi mooy waañ waañu Baay Faal ñun ñooy togg di jox gan ñi ñi fi amul dal xamuñ fi kenn loolu mooy suñ taxawaay di togg leen jox benn rek waaw incha allah. da ngay dëggal ne ci jabootu Cheikh Mouhidine taalibe yi dañuy ñëw ak loxo yi lépp sëriñ bi moo koy def dëgg yàlla dañuy jox ñun suñu waañ ba mu doy muy jox yeneen waañ yi sax moom xoolul ko indi ak indi moom lépp pour moom lépp moom la rek te mooy def lépp yi tamit dëgg yàlla. di def. ñun moom dinañ togg la ne dinañ togg xeetu togg bu ne dinañ togg nii di yekk ba keroog gàmm nii ñu tàmbalee nii tey ci bisimilah rahmaani rahim yal nañ ko eggale alhamdulilah rabbil yu nekk su fee ay loo xalaat rek xeetu beer ne dañ koy togg di joxe melokaanu jullit melokaanu soxna ci biir lislaam yiw sell sol yu jot muur seen yaram ñëw liggéeyal yàlla ak yonent ba comme moom ni mu ko bëggee loolu lañ soxla ci béréb bi soxla wuñ ko dara lu yiwa di wax dëgg fii dafa a sori lool hmm. dëkk yi ñu ngi def seen jumtukaay yëpp danay mën waaw presque yëpp a ñëwee ba tey génnatul fii waañ wi te leneen luy soxla itam te nekku fii wax dëgg boo sax ñu indi la ko koy indi sawar nañ ci ñi koy joxe pour mu ñëwee sawar nañ ci wax dëgg ci xonaa soppeeku yow fekkee nga bu njëkk bi daan ñëw di jaar ci saako yeeg yéeg ci sëreet. <laughs> waaw waaw dëgg la de di xuus ndox mi. waaw ci saako yi. di dox wax dëgg yàlla léegi am na rang rang macha allah te ci kaw ci kanam rek tëli lay doon léegi incha allah rab fi ne ñëw bi yomb na trop boo bëggee oto sareet yaa ngi ñëw jakarta loo ci ñeme rek boo ñëwul jakarta ñeme woo kii tamit boo taxawee tuuti oto ñëw jël la indi la wax dëgg yàlla lépp yomb na soo bëggoon léegi léegi loo ci soxla wax ma ma xabaaru faydu bi euh, faydu bi nag bu ñu ca yegsee rek daal di ànd ak yéen ci journalu euh, gàmmu gi euh, présentation beeg Cheikh Babacar Dieng. jaajëf mbokk yi ni jaageen jëf ci déglu bi di leen dalal jàmm. Cheikh Babacar Dieng. xibaar yi ñu ñuy waa waajal gàmmu international gu Medina Baye ci atum deux mille vingt deux tey ci njëlbeen taxawu mbiru wér gi yaram yéen ñëpp nag seetlu ngeen ne bërëbu fajukaay bi nga xam ne moo nekkoon ci biir capitalu Faydu Tijaani di poste de sant bi dañ ko nekk di liggéey ñi fi nekkoon toxu ci beneen bërëb bu jege lool tànt bi lii it moo tax jamonoy gàmm nemmeeku woon nañu ne doomu aadama yu bëri daan nañ ko wëtal si ren jii nañu jàpp ne ab hôpital bu ne ci oto moo leen di faj te commission sant bi jàpp ne na daañu ko def ci tëliraa bi fi dend ak marché xar yàlla fi daral gi nekkoon santé ci Komaaf. voilà poste bi dañ yaakaaroon ne avant gàmmu gi day pare ba ñu ko mais yàlla def na parewut bi te poste bi fu ñu ko toxal fu mu nekk nii dafa encombrant foofu parce que foofu la ñuy defee gàmmu gi exactement si milieu boobu te milieu boobu am na heure bu muy jot dañ koy baare kenn du fa dugg soo amul badge bala nga am laissez-passer donc moo tax poste bi il ñu tëj ko provisoire mais nag déplacé ko tuuti ministère bi wax si poste Medina Baye la ñuy ñëw si jour yi gàmmu parce que affluence bi foofu lay gën a bari donc comme ñoom nag xamuñu ko mën nañ yaakaar ne poste bi mi ngi sur moo tax bëgguñ camion boobu mu sori poste bi ñu prépositionné ko bi pour que ko si su ñëwee bu ñu réer ñu xalaatoon def ko si buntu poste bi mais am na ay travaux yu nekk foofu dinañ xool naka la ñu aménagé ba camion bi xaj foofu su à défaut ñu jël camion bi yóbbu ko si ren nag na ñëpp jàpp ne bu fajukaay bi nar a gën a xumb jamonoy gàmm moo di clinique Chifaul Asqam bu Cheikh Imam Hassan Cissé ndax daanaka jumtukaay xarale yi gën foor ci wàllum faj te état bu Sénégal jaarale ko ci ministère de la santé nar ko indi ci na bàyyi fii moo di doon seen daluwaay docteur Niane Seck mooy médecin chef district bu Kasnak ci Kaolack. Institut Pasteur ren dañuy ñëwaat parce que daaw ñëwoon nañu pour permettre ñi nga xam def test Covid parce que Medina Baye bu ñu

directrice bi jël na ay dispositions yoo xam ne tout le personnel sera disponible et prise en charge bi c'est gratuit en dehors de l'hôpital régional centre de santé Casenac aussi lépp luñ fa am lañ ko fay def te gratuitement te am na ay cliniques yoo xam ne dañuy dimbale mooy clinique Diarama ak clinique Lamp yoo xam ne en cas bu dee hôpital mënul jël suffisamment de malades ñoom ils sont pour jël le de malades mais aussi il a SAMU régional ñoom ñu war a jógee Dakar ak ñi nga xam ne ba assistance médicale ñoom déployé nañ seen personnel donc transport bi rek la xaar donc yaakaar nañ ne daal ren comme ni demee rek noonu lay demee هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين wàccaayu gàmmu ga di wéyandi comité bii ñu dëppee COMAF nag am ay commission ci biiram ñoom ñëpp nag dañuy liggéey ci ron président national fédération jamhiyatu ansaaru diin moom Cheikh Mounhamina ibnu Cheikh al Islam jàpp ne satisfaction totale moom nekkul lu yomb waaye ni mbiri di doxee nii njortu manees na cee rafet seq nañ ak moom waxtaan wu yaa. waaw xam nga satisfaction moom daanaka dama lay wax rek la bàyyi waxoon ba mu demee Mauritanie ko ba pare na ko sëriñ bi nga mu ma fi sama ngërëm mooy jiitu ñëw fi donc dama jàpp ne ñuy liggéeyal yëpp bàyyi la ñuy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ñuy liggéeyal ci ron bàyyi organisation moo laaj ñu def ko ay commission rek jàpp naa ne commission bu nekk ka ko jiite responsabilité bi mu am yow en tant que président moom nga am bugg-bugg bi nga am moom nga am li la boole ci bàyyi moo ko boole ci bàyyi kon daanaka kenn ëppale wu ci kenn mais wàllu organisation la ñuy def rek pour harmoniser te ñiy def yore commission yëpp miin nañ ko miin nañ liggéey bi xam nañ ko te wane nañ ci ak cawartaane donc amul benn jafe-jafe boo xam ne war nañ koo séddu ci loolu jafe-jafe bi mën a am rek mooy léeg-léeg moyens yi dana ñëw ñëw mais am na ci yoo xam dafa yéex a ñëw am na ci commission yoo xam ne dëgg dëgg dañ leen di yërëm parce que seen moyens yi dañuy yéex a ñëw waaw ku ci mel ni Baba Niang sax foog ma tudd ko gërëm ko parce que moom dana ko jaral sax mu dem lebi wala mu dem uti sa poñe kenn mu abal ko mu def après ñu remplacer yéex a ñëw boobu loolu ci ñun la maanaam fédération yi ak yooyu ak ñi nekk ci àll bi am na ci ñoo xam ne ñiy participer ci Ansar Dine ñoom na ñoo a ñëw soññ nañ leen ba sonn nag ne di teel a ñëw pour yëf wëy ba tey jii bu dee ci commission bu ñu dénk wàllum assainissement ak environnement ci biir COMAF ñoom jàpp nañ ne ren jii ci seen wàllu gën ñu féetee ndaw yi buuréñ ko waroon a séqal ñoo xaw a teg a tembeel seeni mbir ndax ba jamono jile temb am na mbedd yoo xam ne kenn mën a sufa jaar te yoon la ñuy war a jëfandikoo jamonoy gàmmu ngir wuutal ci biir fay capitalu Faydu moo du Pané mooy adjoint ci seen Abdourahmane Niass mi nga xam ne mooy président commission bi ci COMAF ak ci fayeekoo am na ñu bëri jëloon nañ ma seen engagement lu demee niki ONAS am na ay jamono mën na ñaari at am na ki mbedd ak benn yoo xam ne yokkoon nañ ko fi ñu defaroon ko ba mu des raccordement mooy tali bi jëm kër gan noonu bayeekoo si jumaa ji mu amoon ay raccordement yoo xam ne desoon na si nag mu nekkoon ñu koy tawat di ko tawat di ko tawat ba ren yàlla def na si saafara démb biñ bayeekoo Dakar si réunion bi ki nga xam ne moo jiite loolu bu mu jëlee si kanam ministre bi jël na ay engagement na ko incha allah samedi côté bi nga xam ne nag moom moo xaw a des moo xaw a sooxe ku xam gàmmoo xam li fiy ñëw si ay nit bu ñuy ñëw war nañoo am yoon boo xam ne wax dëgg dafa war a normal lu deme ni tali bi route national bi nga xam ne moo bayee ko def directement Mirina ak bi nga xam ne moo wër jëm si julleekaay bi wax dëgg yàlla ni mel ñaaw na jégg na dayoo euh, te ki nga xam ne moo ko jiite muy Diouf jëloon na engagement mais ba léegi engagement yi mu jëloon defa ko ci dara ndax boo jëlee tali bii nii wax bëri na pax tali bii nii deuxième tali bi boo wëree jëm si rond point bi c'est la même chose defaguñ ci dara toli raay bi ok te waxoon na ne dana ko defar ba léegi tamit defaragut ko kon ñu ngi koy ñaan na ko gàmmoo gi yegsi na li des fii ak gàmmoo gi matu cinq jours léegi soo ci bëggee defarul kon mooy daanaka moom doo defar kon ñu ngi koy ñaan daal di ko fàttali na ko engagement bi mu jëloon te yoon yi dafa am solo wax dëgg yàlla mu ñëw defar ko te luñ soxla woon la luñ tawatoon la te luñ bindoon la ci kaye bi ci jamono jooju nag municipalité bi moom euh, a jëfandikoo ne dana yomb ci ñenn ñi jafe ci ñeneen ñi ba fa police municipale demee ci teewaayu Aline Badara Diop. ginnaaw waajtaayu gàmm international bu Medina bàyyi ñi lee ñuy wooyee police municipale ñu ngi def liggéey bu am solo ci gox bi lee yaatal mbedd yi xàlluwaat yoon bi loolu mooy liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy def fi ñu toll nii fii ci Medina bàyyi Pape Sarr bi tey moo jiite ñii leen ndaw. ah li ni mel parce que ñu ngi jublu ci bés bu màgg muy bésu kilifa jox ñu ci ay instruction bu ñu ne kilifa mu ngi ko commencé ci monsieur le maire Serigne Mboup tegu ci le secrétaire général Mamadou Moustapha Dieng donc jox ñu ay instruction defe naa depuis presque une semaine ngi nii ñu ngi fi fexe nag quand même yoon yi nga xam ni nit ñi mën nañ fi jaar ñu defar ko mu yemb yoon yi nga xam ni oto yi aussi mën nañ fi jaar ñu fexe mu am fluidité maanaam nit ñi oto yi mun di dem sans autant mu bokk ak fi nga xam ni nit ñi fa lañu war a mun a jaar pour dem ci jumaa ji looloo ñu fi indi naam sax liggéey bi la yombul dara wante teewul ñu ngi def seen kémtu lay kattan ndaxte liggéey bi ñu def nii bokk ci ay ordre yoo xamante ni dafa jógee ci seen kilifa. waaw non yombul nag parce que lu jëm ci population moom xam nga fu nit ñi di daje dafay xaw a doy waar tuuti di nga taseeg ñoo xam ni dañuy am compréhension di nga taseeg ñoo xam ni seen yoon nekku ci li leen neex rek la ñu gis donc ñooñu dafa laaj aussi noo leen di aborder nooy wax ak ñoom voilà ba convaincre leen ci li nga xam ni moo ñu fi indi parce liggéey bi yëpp nag li ko uti rek mooy jëm ci mawlud te ku wax mawlud fii biir Kaolack di nga tudd Medina Baye donc euh, mu nekk nag dëkk bu quartier boo xam ni quartier bu saint la ki fi nekk di Cheikh al Islam nga àdduna fi ñëw rawatina ñi nga xam ni ñu ngi ci biir Sénégal amul murit amul tiijaan ah képp kuy jullit di nga ñëw Medina Baye ziare ci et c'est aussi nga dem ba xabru Baye Cheikh l'Islam sàkku fa ñaan loolu dafa nekk période boo xam ne ci période mawlud dafa am importance looloo tax kilifa yi jox ñu instruction te comme façon bu nekk daf fi daje nañu jiitu fexe xàll yoon yi defar daal ba nga xam ni dina gën a rafet ni ni mu meloon daaw looloo waral suñu teew lii ni yëpp ñuy def bokk na ci taaral dëkk bu sell bi di Medina Baye xàll yoon yi askan bi nga xamante ni ñoo war a ñëw gàmm si fii ci dëkk bu sell bi di Medina Baye ñu mun a am gàmm gu mucc ayib bañ am tamit benn gàllankoor ci wàllum dem dikk ci gàmm international bu Medina Baye atub 2022. mbokk yi jeex na tàkk kon xibaar yi nga xam ne moom la ñu waa waajal gàmmu international bu na bàyyi lii leen ci indiloon bisu tey jii xanaa di leen fàttali ne jamono ji nag tàmbale ko démb ak tey ñi nga amal seen podium yoo xam dañu fay waxtaanee xam-xam ci ay làng yu wute ca daluwaay bii ni duppee résidence Ablaye Bayero ñëpp naan ko këri gan ci na bàyyi lii dafa bokk ci activité yi nga xam ne dañ koy waajalee guddi gàmmu war a am samedi le 8 octobre mbokk yi ñu di leen ñaanal nañ ko fekkee jàmm xabaar yi xabaru eh, bi ci réew Alioune Badara foo koy dooree. Ah, jërëjëf eh, Ngone Ndiaye ren xibaar bitim réew dañ koy door ak réew bu Burkina Faso ginnaaw coup d'état bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko foofulee ba ki nga xamante ni mooy Ibrahima Traoré nekk ci li nga xamante ni mooy bopp jënt bi le moom moomu la amoon am ndaje bu yaatoo yaatu ak ñi nga xamante ni ñooy secrétaire généraux yi ak ñeneen ñoo xamante ni bokk nañ ci ngurnement googu lii li gënoon a fës ci daje boobule bokk na ci jéem a jubbantiwaat doxalinu réew mi wante tamit baral li nga xamante ni mooy liggéey bi rawatina ci yenn ay ay dossier ndaje boobu nag mën nañu wax ni mooy ndaje bu njëkk ginnaaw bi mu toogee ci jent bi nekk foofu ca Burkina Faso kii di capitaine Ibrahima Traoré moom na waxtu bi ñu toll moom mooy l'homme fort bu réew bu Burkina Faso. xabaar yi bitim réew. dem ba réew bu Guinée ginnaaw bi nga xamante ni ñu ngi doon màggal juróom benn fukk ak ñeent anniversaire bi ñu moomee seen bopp booba léegi mbir moomu leen nag ci fàttali mu ngi am ci dibeer gi ñu weesu ci teewaayu kilifa yu bëri bëri ba tax na ki nga xamante ni moo jiite jent bi ni mel foofu ca réew bu Guinée di colonel Mamadou Doumbouya moom moo mu leen ndokkel na askan bi yow foofu ci réew bu Guinée wante profité na ci li mel ngir kat a jubbantiwaat doxalinu réew mi wante tamit jéem a dolliwaat kaaraange bi teg ci rataxal diggante bi ak ñeneen ñi nga xamante ni ñoo bokk ci yeneen classe politique yi loolu nag bokkoon na ci li gënoon a fës ci discours bi nga xamante ni amaloon na ko à la nation ci jamono ji nga xamante ni ñu ngi doon màggal seen juróom-benn fukk ak ñeenteelu anniversaire ginnaaw bi ñu moomee seen bopp ba léegi. xabaar bu réew bu Haïti wax ci jàngoro bii di choléra ginnaaw bi ñu toogee lu tollook at yoo xamante ni gisuñ li ni mel foofu ci réew bu Haïti jamono ji ñu toll nag jot nañ nemmeeku lu tollook juróom-ñaari doomu aadama yoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan ci feebar bi ni mel di choléra xibaar yooyu la ngi ko jot ci njàppandalu kilifa yi nga xamante ñooy yëngatu ci wàllum wér-gu-yaram foofu ci Haïti ginnaaw nag bi ñu jotee nemmeeku ci diggante atub 2010 ak atub 2019 mu jot rey lu tollook fukki junni doomu aadama wante nag ci jamono ji ñu moom ñi nga xamante ni ñoo yor def seen kémtulaay kattan ngir ko dakkal fa feebar bii di choléra ci seen réew. xabaar yi bitim réew. xibaar bitim réew dañ koy jeexale réew bu Brésil wax ci élection présidentielle yi nga xamante ni waxtu bi ñu toll nag jàll nañ premier tour bi ak ki nekk ci bopp bi nag du kenn lu Lula moom mi nga xamante ni moo fi nekkoon njiitu réew bokk ci parti de gauche jamono juñ toll nag mën nañu wax ni moo jiitu ci bile jongante yi foofu ci réew bu Brésil ndaxte nag mu ngi am luy tolloog 48 pour cent moom moomu lay moo war a jàkkaarloo. Morlo ak ki nga xamante ni mooy Bolcerano ci deuxième tour bi nga xamante ni jàpp nañ ko fanweeri fan ci weeru octobre bi ñu nar dëtmal euh, foofu euh, ci réew bu Brésil. xabaar yi bitim réew. Euh, jërëjëf foofu la ñu bëri xibaar bitim réew yi ca ndëngërëm ñeel na la jaa ngeen jëf. bàkk boobee kon euh, tàggat yaram gi lay euh, yëgle Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Ngone Ndiaye maa ngi lay fay te nuyu ma ko auditeurs yi dina ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom xibaaru tàggat yaram yi dañu koy dooree ak basketball fédération sénégalaise bu wàllu wàllum basketball nag jël na ab ndogal ne lii di numéro 15 bi nga xamante ni Mame Maty Mbengue moom la daan sol ci équipe nationale da koy génne ci mbir mi li ko waral nag moom mooy parcours bi nga xamante ni gone gi def nag ndax am na juróomi médaille d'or ca Afrobasket ñaari médaille or ci Jeux yi ñetti yoon mu nekk ko meilleure joueuse ci afro basket am médaille or ci jeu de la francophonie nekk ren du basket fii ci sunum réew ñu tabboon ko mu nekkoon joueuse cinquantenaire bu ba Afrique ñu daal di waxtaane mbirum làmb ñeent face to ci benn kongoon dimanche gi ñu dëkkmal ci la xabaru di amal ki ko amal nag di Gaston production nag war a amal bésub face diggante bala Gaye 2 ak Boy Niang 2 Sa Thiès rëg-rëg franc ak forza marley ak sox fa ñu defee face to face bi nag kenn jàppagu ko football la ñuy waxtaane ak ñetteelu bëccëg ligue des champions bi door tey ci ngoon bu juróom-ñaari waxtu jotee liverpool mooy laaleeg glasgow rangers ajax bu amsterdam di laaleeg naples fc porto di laaleeg bayer leverkusen club bruges di laaleeg atlético madrid bayern munich di laaleeg victoria plzen bu ñeenti waxtu jotee ba teg ñeent fukki simili ak juróom inter milan di laaleeg fc barcelone bu juróom-ñaari waxtu jotee dalaaleeg Sporting Portugal bu ñeenti waxtu jotee ba teg ñeent fukki sibileeg juróom Hertha Francfort dalaaleeg Tottenham ñu dellu si waat fii ci Kaolack waxtaanee nag moom la ñu tabb mu nekk entraîneur bu yees bu AS Saloum mu wutu fa Moustapha Seck ñu déglu Moustapha Ndiaye ki ñu toftal ci président bi waaye tamit mu yore lépp luy wàllum communication mu dikkaat ñun ci tabuk Mame Cor Faye. waaw Saloum am na entraîneur bu bees bu ñuy wax euh, Mame Cor Faye bi xam ne moom mu nekk directeur technique football liggéey bi mooy jaaje euh, sàll li des ci aplatiste technique bi changé wul Bassirou Dieng moo nekk euh, entre préparateur des gardiens Mame Seydou nekk euh, préparateur physique Cheikh Tidiane Ndour bi nga xam ne nekkoon na capitaine ci équipe bi nekkoon aplatiste technique bi moo complété staff technique bu ASC Saloum boobu noonu pour pour ñaari at xam ngeen ne jaaja ak Mame Kor Faye ñoom ñëpp ay doomi Saloum lañ te mos lañu yor équipe bi ñu leen di ñaanal saison jàmm yàlla dimbale atteindre objectif yi nga xam moom de de l'élite pétanque la ñu koy bi assemblée générale bi nag jeexee fédération sénégalaise bi wàllum sport boule nag na ca stade Demba li nga xamante ni moom mooy seen assemblée générale Derwish Brahim nag la ñu tabb bu bu yees bi nga xamante ni moom mooy fédération bi mu daal di fay ut nag ki nga xamante ni moom mooy a Ezzedine bi nga xamante ne génn àdduna juróom-ñaari fan mars atum 2021 ma ngoog Gode Ndiaye gannaaw ba la ñaanalee gannaaw yu jàmm li ma gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram yi jaa ngeen jëf. li ci yéene kaay yi kaay yi. L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf. lii euh, gën a fës ci yéene kaay yeeg El Hadji euh, Seydina Omar Cissé. Ah. halaan bikum Karim Wade waxal na boppam nee na bëggut Macky Sall jéggal ko amnistie allah turbine yéene kaay ñu ko xamal yemut fa facaa yokk di tëkk moom Karim Wade mais boo moytuut fay génn PDS su fekkee fañ ko nar a amnistie ndax man faa defu dara fañ maa tooñ faa bëgguñu setal ma wecc moo gën ay amnistie enquête yéene kaay na ko say mbir nag fi mu toll nii tax na PDS fa xar ñaar seetal fa xam ñu d'accord d'accord ci ñu amnistie la xam ñeneen ñoo xam ne fa ñoo bañ ne d'accorduñ ci rawatina ndaw PDS mer ba futt fa ñoo bëgg ñu setal la Thierno Alassane Sall na leen loolu ngeen di wax mooy waxu caaxaan-caaxaan Karim Wade ak kudut Karim Wade amnistie bii ñuy wax du dëgg du yoon ndax boo mooy tuut xam na ñeneen ñoo xam ne fañ ciy bénéficié wu jëriñoo ko te ñoo xam ne fa ñoo def tooxi doona ci wàllu koom rawatina ñi labaj pétrole Sénégal bi kon fii ku fi bëgg loolu mooy bëgg-bëgg waa APR yi Alioune Souaré ne hee faa ngeen def ndànk loolu su ngeen ko defee fay ragal na fa ngeen di yoon duudu wàdd man faay leeral ñi nga xam ne fa ñuy méngale li daloon Mbaye Ndiaye ak Mimi du benn de ndaw APR yi ci l'évidence yéen a kaay ngay woo Mimi na ko bàyyil sa yërëm tugi ngir bëgg sénégalais yërëm la te nga delloo ñu suñ mandat député bi bés bi yéen a kaay ne Abdoulaye Balde bokkaat na ci mbir yi de doxalinu réew mi ah am na ndomba tànk bu rëy si jamono jooju Macky bëgg a jéggal Karim Wade loolu moom fa tombee rek walla ay pexe la pexey Serigne Mbaye Thiam mooy jiite PS wuutu Ousmane Tanor Dieng nee na loolu mooy bëgg-bëggam bés bi yéen e kaay ne Serigne Mbaye Thiam ponkal ngonk yi ëpp doole PS moom lañ àndal bëgg mu jiite PS ndaje mañ ko doon sargalee ca kër ma jabel yéetéet la fa daje ci doomu aadama foo ko natt weesu na ko département ñooro ña nga ca gannaaw Serigne bay Thiam ma ngi ko waxee ci bés bi yéen e kaay leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne Ousmane Sonko wax na lu leer képp kuy liggéey ak moom ca mairie bu Ziguinchor moo xam ngay ab agent wala conseil municipal képp ku fa sàcc benn dërëmu askan wa même bu dee jullit la nee na leen du ma leen làq faa leen di kalaame ak yoon yoon def liggéeyam léegi si ko yéen kaay ñu ko xamal 24 heures yéen e kaay ne neexut dégg waaye Ousmane Sonko maire dëgg ni moom lay mel kilifa gu bëgg réewam bëgg goxam ni moom lay mel ndax fa wax dëgg askanu Ziguinchor te mooy gis ngeen suñ dëkk bi état bu Sénégal makkeek bitim réew kenn duñu ko defaral waaye ñun doomu Ziguinchor ñoo ko war a defar futteeku liggéey cotiser joxe xaalis comme ni ko waa Touba ca kanam defee su boobaa ñu mën a suñ dëkk bi te duñ xaar kenn gëm ndaw ñi bàyyi football geeg naanam ataaya bu amul xab juróomi milliards moom laa soxla ngir suqali Ziguinchor Sud Quotidien moom di ñu xamal ne ubbi jàng tey mën ta ren Sénégal ci école yi xaay yi xool école ndox maa ngi fees dell ñu ne déetawaay jàngalekat yi fa ñoo manqué jëwriñ ji dénk wàllu njàng ma njàngale mi ne xée xaar leen 45 000 jàngalekat yi ñuy wax ne fa manqué loolu du dëgg ma weddee ca Libération Le Quotidien yéen a kaay ne CUSEMS ak SAEMS am nañ ay njiit yu bees ginnaaw ñaari mandat Abdoulaye Ndoye ak Saourou Sène fa metti na de leer leneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne jën moom amatul Sénégal li fi xam ak néew fa cher ba jégg dayoo le soleil yéen a kaay mel ni ku naan nappkat yi jaaxle nañ ki jaaxle dëgg kay mooy Mahmoud Saleh mi nga xam ne ma Macky Sall fa ko kajji dàq génne ko ca biti na ko envoi spécial nga loolu mooy ne faa bëgg nga sori ma génnal dem te mooy yéen a kaay ne faa leen di wax li tax Macky sanctionné dàq Mahmoud Saleh yow seetal wote maire yi weesu Mahmoud Saleh fa def ay lobby am ay nitam yoo xam ne fa wax Macky Sall na leen investir leen am nañ doole ca diiwaane lañ nekk def ko te mboolem ku Mahmoud Saleh sampoon ci élection locale yi fañ laa mbuqi ba di la watat tut ñu rey la ndax seeni askan bëgguñ leen ay complot ak yeneen mbir lii yéen di ñu xamal ne soxna yi cancer fale na sonal de ñeneen ñu sonn mooy askanu Kaolack ndangaan ak Kolda Ziguinchor Ndakaaru ndox ma moo nangu seeni école kon élèves yi nu ñu def ba jàngi looloy problème ba problème bi gën a mag nag te itteel askan wi mooy luñ lekk ko gut gars fa ñuy tuur lëndëm rek askan wi liñ def yëpp fa niil biram xujjaloo bokk ci Pastef bu Ousmane Sonko mel ni ku naan ko Macky ak ñim àndal fa ñoo tële xamuñ sax ban yoon lañ war a jaar pour wàññi dund gu cher gi ci le mandat yéen kaay nee fukki dogal ak juróom yi jël yëpp baaxut santu yàlla li nar a baax wala mu bon ci Sitor Ndour ma ñu tëj kaso ndax tuumal na fa violé mbindaanam ba léeg si ko kaay nee alxamis ci bàyyib négandiku xattaka dina ko ñoo bañ kaay dugg ci kaso gi keneen ku ñu jàpp defeere ko mooy doomu Mariama Sarr bi ministre ba dëkk Kaolack xam nga doomam bi fa ñoo wax na fa fee def tooxi doona la tax nag procureur sàkk ñu defeere ko source a moo ñu ko xamal ah, yow seetal fa mbëkk borom moto ba au mu taxaw mu daw loolu fa garaaw ñu ne déetawaay ba muy dawal oto ba doomu Mariama Sarr bi yorewutoon permis loolu it fa garaaw source a ne moom nag police a jàppoon du baax ci a jàpp ñoomi tamit mooy naar yu dëkk Maroc fañ doon trafiqué wàllu hashish xeetu dorog Socrates ñoo leen teg loxo fekk seen réew Maroc ñu leen doon wër libération moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom vox populi mooy gàmmu international mi bàyyi samedi bi di ñëw lañ koy xamal yéene kaay bi di ñuy fàttali ñaareelu xalifa bu Baye Niass di doomam muy El Hadji Abdoulaye ñu gënoon koo xam ci Papa la gane àdduna ba ku xamoon xam-xam ku ñeme dëgg ku ñëpp wegoon respecté ko ku ñàkk caaxaan moo xalifa bu Medina Baye bii di Cheikh Mahi Ibrahima Mboub taskatu xibaar moo ñu ko wax ci biir yéen a kaay tàggat yaram Ligue des champions ñetteelu surne bi Marseille xanaa dana góorgóorlu na saajo Mané nar nañoo rey ñañ war a daja tey de bu 16h45 jotee stade a kaay ñu ko xamal turbine yéen a kaay di ñu xamal mbir mu yéeme te garaaw yow seetal benn maçon daal jabaram fa koo tàggu ngir xam fu muy dem mu ne ko bul génn kër gi laa wax ba mu demee rek soxna sa génn kër ga dem waaye bi mu ñibbisee xam nga nu ko jëkkër ji def fa rocci paaka di ko ko bojji fa ko koo jam fukki yoon allah waa ma ne bu la sa soxna tàggoo nga xaaye ko mu bañ mooy ne wut ak sa ndigal joxut la cër dëgg la waaye jarul nga koy jam paaka di rey doomu jàmbur déedéet fa nga koy fase mu dem nga dem takki keneen jàmm na ñooy li ci euh, yéenikaay yi euh, shukran El Hadji euh, Oumar ponk boobee sax nag mooy jeexal xibaar yi jaajëfal nañu leen bu baax a baax yéen ñi faxewoon ci wàllu déglu gi jaajëfal ko moom Serigne Moussa Kane ci xarale gi Mouhamadou Khalili ci partie digitale bi waaye nag duñu fàtte waa rédaction ak waa production ci jàppandal gi ñaanal nañu leen mucc ak mucculee jàmmi biir ak biti tawféex ak taysiir jaa jàngeen jëfati. Le yi Ngoné Ndiaye